ayca tabarkàlla tey nag ñu ngi fii ci Alizé Night Club ci soirée bi nga xamante ni moo di Assane Diop Ndiouga Njara Ndiaye Sala Khary Ngoné Magana Birane Diop di maamam ma ñëw nag fekk fi ndaanaan boo xamante ni àdduna laay wax du ma ne Sénégal kenn dootu ko laajte muy Manel Diop euh, grand tey ñu fekk la fii ci euh, Alizé Night Club ñu ci kontaan bu baax a baax a baax waaw man maa gën a kontaan donc di leen euh, maa ngi saluer képp koo xam yaa ngi ci site bi ci seen télévision bi donc Assane nag suma rakk la suma xarit la donc day def sumay joué nag vraiment dafay ñëw moo tax tey ma yàq nelaw yi rek nii naa ci ñëw jàpp ko Lat Dior Diobay sa maam Kulu Diop sa maam nga daanoon Ndofane tey ñu fekk la fii ci Alizé Night Club nga ñëw jàppale sa rakk ah, Assane Diop ah tey tabarkalla lan nga ñu mën a wax tey ci moom. waaw Assane ku baax la ko généreux la et puis c'est un artiste de talent. donc comme ñun yàgg nañ ci musique bi dañ leen di encouragé te je sais que mang koy ñaanal rek fi mu bëgg ag àgg moom moo xam ya na ko fa yalla agalé lan nga ñuy wax ci suñu seen bi nga xamanteni ni tabarkaala àdduna koy seetaan euh, askan bi safoo ko loolu muy elvision media waaw mais di leen ñaanal rek euh, di leen ñaanal mu dem ba nek ay chaîne chaîne affaire yi moom gëm la rek ak gor gor góorgóorlu parce que affaire yi ken kenn moomu quoi vraiment je suis très content ma ngi leen di seetaan bu baax quoi jaajëf mon grand jaajëf waay baax a baax di leen ziare man docteur Guèye Bamba Baye Serigne Salim maa ngi nii taxaw Guèye Massiré gis a Guèye Fatim Penda ak Mañaay Mañaay Jéng xalaxaan ak Kouma Gone tey nag ñu ñëw fii ci Kaban euh, Safurla ñu ngi fii tey ci Alizé Night Club euh, ex Madison tey nag ñu fekk si ki nga xamante ni mooy Assane Souroumle woote fi tey bu ngeen gisee salle bi ni mel ñëpp ñu wuy si ko sama ginnaaw ma taxaw ak ak Néné di koo xamante ni si bokk ci Assane Souroumle Néné maa ngi lay nuyu noo gisee soirée bi tey. waaw maa ngi lay fay kasancewa moom su wootee day neex daa ma gën a noonu. ba tey ma tase waat ak beneen kàpp nga ñëw ci soirée Assane tey nan nga gisee soirée bi tey. soirée bu neex gaan bi yaa ngi koy yaa ngi koy dund ndax mel ni. koo bi. décembre bi koo koy àndal kon neex na jaajëf Serigne Saliou topp ma ñu dem ba tey ñu ngi fii tey ci Alizé Night Club ma toog ak Mbaye Gueye Mbaye maa ngi la nuyu. waaw mais nice Bamba. mais tey noo gisee soirée Assane Diop. soirée bi moom vraiment nice na trop. waaw vraiment a na donc gars yi ñëw euh, na daal neex na trop vraiment nice na la nga toog di doomu ndey Assane Diop loo gisee soirée bi tey. dëgg la soirée bi nice la ci gis rafet na trop kontaan ñëw nañu wuyu si nañu affaire na trop. ayca mu ngi noonu ba tey nag Alizé Night Club la ñu wax ak Assane Souroulé ba tey maa ngi nekk ak ay doomu ndeyam doomu ndey maa ngi lay siyaar. fay naa la. noo gisee tey soirée bi. neex rek kontaan. Assane moo la yëkkati wala xale la yëkkati. Assane joxo moo a yëkkati. kon tey bi naaj. day neex. ayca ba tey di leen fàttali ñu ngi fii ci Alizé Night Club fas yéene tasaare kuy mbëttal gàmb yee toj sa waay di jooy. kan moo waral sañse bi tey. mais li nga sañse ba xeeboo ko. wax ma li nga sañse lu mu doon. damaa yore sugu di def sama magasin daan koy boole sama mag sama xarit moomu ko ñaawal. ku la tooñ dootu ko ko noonu. acca ba tey sama doomu ndey ma fekk la nga def sa sobo bu baax yow it noo gisee soirée bi tey. kanam yaa jël rek nga sañse wax ma li nga sañse lu doon. ah su ma a xam. Ah, acce ba tey tabarkalla ñu leen ko waxee rek dangoo ñu dem ndax tey ñu ngi fii ci Alizé Night Club tabarkalla nekk ci soirée Assane Diop Massi a ah di doom ji Baye Boury Diop Ndiouga Ndiara Ndiaye Sala Xari Ngode Magana Birane Diop di sa maam tey tabarkalla nee naa la tey lu waay fi tey day am ngeen ànd doomu ndey docteur Guèye Bamba Baye Serigne Saliou sama caméraman topp ma kaay ndax maa ngi seen ci angle bi li nga xamante ni si mooy Zeyna Séeri Alaaji taxaw ni ci sama wet mais Zeyna noo gisee soirée bi tey waaw soirée bi dafa ala doome parce que ki koy def Bamba dafa ala doome yow Bamba yow sax da doome ndax nga sax dafa rafet. El Vision ko waral. waaw gis nga. waaye foo tamit nii laa def mais baa xeeboon li nga sañ sañ. Saliou Ndiaye dafa jàpp. kan moo la tooñ. kenn tooñu ma barke fii barke Serigne Touba commandel sañse ba Italie nii laa def ndax nee naa tey fii du yomb ànd ak sama jëkkër rek barke yéen bi. mais tey teewoo micro de tey da woote moo tax ma ñëw ko mais nag tey da ngeen gis lu ngeen mës a gis DG El Vision Média fii ci euh, Alizé Night Club ñëw ci soirée Assane mu nekk loo xamante ni si c'est une première tey DG ñëw soirée mais DG noo gisee soirée bi tey waaw mais sant yàlla rek Assane suñu waay la suñu suñu xarit la euh, ñu bokk moom koñ mu nekk ni ku baax Euh, tey li ñu war a yëpp mooy bàyyi lépp ànd ak gaa yëpp ah yow gis nga boobu ba léegi yaa ngi ci bagage tey vraiment ak décembre bi événement yi bari na vraiment sànq lay doog a ñëw parce que euh, mënul ñàkk ñu ànd ak joom mi nga xamante ne xam nga gaa yaa ngi nii daal gaa yi ñooy El Vision Média euh, di remercier Saliou mi nekk ci cadre caméra bi aussi. mais est-ce xam nga ne El Vision Média mu ngi yëngal àdduna. waaw mais ñun loolu lañ ñaan yàlla yëngal yëngal àdduna parce que ay ndaw lañ di liggéey nekk ci bu nekk ñaan nañ yàlla tey fii télé ñun ñu dem ba toll foofu tamit aussi. mais ñii ñii seetaan El Vision ñoo may yóbbante nee nañu laajal ma DG lan mooy secret El Vision Média. liggéey la rek liggéey rek liggéey wax tuuti rek liggéey lu bari waa loolu rek mooy secret bi quoi waaw wax tuuti rek liggéey quoi. ayca mu ngi noonu mu nekk DG wu El Vision loo siré ma ca ndaam xam-xam baa nga teg baa nga daam wa gaa nga daam doomu ndey ayca. bu ngeen ko xoolee tabarkàlla moo di dëkkandoo neex ak kontaan xam nga suñu grand buy wootee dañuy bàyyi lépp lu ñu teewoon ñëw fekkee ko fekk ba kon waaye ba ba dugg mais tey El Vision Médias moo ñëw Alizé Night Club waaw waaw suñu bu xewlee il ñu indi suñu matériel yëpp daal di koy gunge ci bisam bi moom moo ñu waat parce que moo ñu ko ji quoi voilà dañuy doomu ndey Assane Diop ma fekk la fii soirée bi tey noo gisee soirée bi tey. waaw salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu waa di nuyu le waaw soirée bi allah na trop trop waaw di leen daal di leen waaw. mu la. waaw lépp jàmm ak sama kontaan naa ci sa biir nag fekk yàlla ajja nañu dem maa ngi fii ci El Vision Média comme ni ma leen ko waxee saa su ne ñu fekk si ki nga xamante ni moo di Assane Diop Assane Surumle Juga Njere Njaay Sala Xari Ngone Magana Birane Diop di maamam Alaaji Masi la ñuy woowee baayam Ajaratu Mamba Mbaay la ñuy woowee yaayam tabarkàlla la ñuy jooy te nëbbeeguñu yaay booy noo gisee soirée bi tey salaamaaleykum mbooloo mi tubaar fa kaala macha allah ñoo ngi sant yàlla julli ci yonent yonent yàlla Muhammad di julli ci Serigne Touba Mbacke di wax ne Assane Diop lii doon la ci moom ma njaay looy baayam alaaji daaw daay baayam ñoo daan jëm-jëmee alburi bi soog a génn may ma ku dundu mu lekk lu dul bii ci daraja yonent yàlla waaw aca nañu dukkat nañu dukkat waaw waaw <laughs> di mbàkki asan surum le tabarkalla ma ne ndax tey saal bi dafa ala daw mais bu ngeen gisee tey fii mel ngeen xamante ni tey liggéey rek a wóor tabarkalla soxna maa ngi la ziar xaadi maa ngi la gisee soirée bi tey xanaa kontaan rek nee na macha allah ñëpp kontaan nan mbokk yi teew na fan si teew na di ko ñaan yàlla loolu la wolof di wax liggéey rek wóor kala ma geesuwaar gi sama ajaratu bi def sañse bu baax ba xeeboo li nga sañse déedéet yàlla tere bisu asan bi kenn du ko xeeb luy waaye sañse lu nekk doo ko asan sax ma ma fi fii ba Ndar ñëw si bisam bi war a xam ne loolu lol asan Diop rek nga ko waral mu ngi noonu Ndiouga Ndiara Ndiaye Sala Xari Ngoone maa gànna Birane Diop ay maamam tabarkàlla rek a wóor neexul mais sang bi mais li ma leen di laaj mooy kan mo leen tooñ. waaw Assane Diop kese dong kese après boo gisee ñaari doomu Penda Naar yi def tout blanc ñëw teewal Assane après bés bi rafet na ba pare luñ ci yokk yàq nañ ko moo ngi naaj El Vision ci kaw ci kanam ñoo ngi seen ginnaaw. mooy suñu télé. acca mooy suñu bonheur El Vision. sang bi kan moo la tooñ. ji ah, man Assane moo ma tooñ. mais est ce que xam nga ne duma nga ko te sa loxo laalu ko. dafa leer dafa leer dafa leer dafa leer. mais baa xeebu leen li ngeen balaa. mais ay daa ma sant loolu ak sama doom see. dëgg la ñoo ma sant loolu ma war a mën a ñëw de ci bés bi lu nice. yaa mais war a mën a yomb tey fii dama war a wàcc deug neexul tay fi dafa wara a wàcc ñu ànd ak Assane Diop Massi ñu Ndiouga Ndiara Ndiaye Sala xari ngone ma gis sama mak sama xarit mais jaak damay tok sumay waxtaan ak yeen quoi mais jaak tay ma nga gis nga def sa waaw yëngatu def lula neex num deme nonu non xam nga avant tout damay gërëm El Vision muy suma mais ba ma tay mais ba ma fooy solo avant. non dama xew nak non ba ma da nga xew mais tay dama xew de. may interview dama bëgg nga wax ma tay manam li design étoile couture mo fi jaar xam nga étoile couture sama diwan la mako mom mais étoile cuir dama bëgg mu mu mu étoile ma ndax clip may waajal jàpp ci ak El Vision Média foog nga étoile noo ci war a def. waa El Vision Média yéen a may dégg clip bi muy waajal jàpp man maa koy sañseel waa étoile couture ñoo koy ñawal costume bu baax jox ko mu sol dëgg neexul xanaa jeex na. waa léegi euh, maa ngi remercier sénégalais yi remercier tamit diaspora ak euh, à travers dans le monde di gërëm xaadim bu baax a baax a baax parce que vraiment. xaadim liggey bu rafet bi nga nek ci dëkk bi gis nañu ko parce que yow ya tax que commune bi artiste yi di développer wu ya tax commune bi tay ñu gis ñu bop ci à travers youtube bi à travers sur internet à travers sur notre base parce que yow ci gam kaama nabatuñu Boubacar Diallo namuñu ben DJ namuñu kenn ndax yow da nga traité njaaxaanaay amo xaaj ak sen Diago Baba Diallo turum le Walid ñep nga fi nekkal kon man avant tout bu mo remercier suma rak Assane Diop diko encourager ci lu muy def di ko ci may cër mais dama naan tamit El Vision Média pick up mais xaadim pick up. El Vision bët bu sor bi tabarkaala waa mais dama laa njëkk a mere nag ndax danga maa dig yenn ba léegi gisuma ko lu waral loolu soxor baaxul am na yoo xamante ni du sa cër bu la neexee waxal. kontaan rek ci bés aw ma lu may xuloo tey tey damay soulager. da ngaa sañ a xuloo. tey damay soulager wér bi waxal lu la neex. bak Serigne Touba Assane Diop rek rek. Hmm. koo xam ne koor ay café ay suukar yooyu doomam nag yow taalibe sëñ Massa Mbaye baayam bàkk sëñ Touba loolu dafa leer mais yow da ngaa baax yaa julli ci géej gi te kenn ku géewul eh, te loo ci xamul nag taay damaa de te xam nga yow loo protégé loolu kenn du ko laal loo xool du ko ngi nii maa ngi nii waa mais ajaratu baa xeeboo li nga sañse dama bëgg nga wax ma li nga sañse lu mu doon yaakaar naa soirée bi tey war naa ala ci yow li nga wax ma koo ko tuddee ah dëgg neexul waa mais sang bi siyaar naa la ça va ñu ngi sant bu baax. mais li mu sant yow la ko tuddee. Eh, waaw loolu la man la ko kay. noo gisee soirée bi tey. oui soirée bi neex naa neex na parce que Assane mooy xewle suñu frère quoi moo doon ñu def déplacement ñëw tamit pour jàppale ko si bësam. parce que nit ki amul loolu sa bës. mais boo xewlee tamit say am na jàmm rek ñoom mën a ñëw pour jàppale la quoi. mais affaire am na. jaajëf mon grand. eh. waaw

ni ñëpp rek di kontaan si ñëpp tamit eh, di wax na ñu ni neen la rek ñu ni neen parce que asan bu amee bisam tuddee ma ko yoon la ma ànd ak samay càmmiñ samay doomu ndey ñoom ñëpp ñëw jàppale sa kon tey da ngay def lu la neex waaw tey moom damay fal fal acca <laughs> waa mais doom ndey maa ngi la fekk ci ruq bi yow it ngay def lu la neex quoi waaw waaw gis nga asan boo xewlee moo tax ñu teew tey kon daal bu asan xewlee da ngeen def lu leen neex waaw asan bu wootee ñëppay ñëw bu soxla Mereka doom yaay maa ngi la fekk ci ruq bi yow ngay def lu la neex waaw dëggantaan noonu la ñu war a mën a def ndax suñu jigéen suñu xarit moom lañ tuddee bés bi muy mami borom caaro yi ñoo ko xam ko ci mbaax ah bu bëggal ñu boppam ñu nekk ay rakam mu ànd ak ñun nag ànd bu rafet moo tax lii yëpp daal ñu ñëw ko jàppale ko daal pour bés bi nice waaw dëgg neexul maa ngi nii taxaw gay ma si rek isa fatim pendaak maa ñaay maa ñaay jéng di sama maam xalaxaana gumba ngone di sama maam masi rek isa jeey sama maam mooy borom fukki jabar ak ñaar juróom benn goro mbaax gaa gor gaa tabe gaa taxoon kër gu ma sa dugg jël na fa ñaar tabarkaala nag tey fii du yomb ndax fii tey fii tey fii tey fii tey fii tey waaw waaw ayca tabarkàlla Assane Diop tey la ñu fekk si fii Ndiouga Njara Ndiaye Sala Xari Ngone Magana Birane Diop di maamam Alaaji Diop Masjid di baayam ajaratu maamam Mbaye mi ni jooy te noppee guñu di yaayam tabarkàlla nag boo wootee Alizé Night Club bu mel nii war na ma taxaw ak sama doomu nday mais doom nday baa xeeboo li nga sañse waa Xaadim la ma def petit camp maa ngi lay nuyu di rek ziar a eh, eh, attends ana petit camp bi petit camp baa ngi nii dugal bii dugal gagné dugal bi <laughs> wa mais dafa melni match bi 1-0 la won dé non match bi 1-1 la te bu jéxé rek jéxna bu jéxé jéxna bu xayé neex waye bu lawé baxna ma ngi lay nuyu sama xarit sama doomu ndey yow sama nit nga ma lay nuyu di nuyu wa El media yi nga xamné ñom ñoom nekkuñu fi lu dul di yàq rek dañuy yàq rek wa El dañuy yàq rek tabarakallah salih bo ma gisé ma taxaw borom sibiri ribiri ribiri raa woo oh, aca may ma ko ma dégg temps mu tàcc mu des mu des ji bi daa nga naan oh. woo. mais est-ce xam nga ne temps da ngeen a xew. waaw loolu yàllaa ko def barke. adduna fi mu toll nii yëpp yéen la ñuy waxtaanee dëgg neexul. waaw loolu yàllaa ko def barke Serigne Touba. waaw lu waral loolu. ah dëgg neexul rek indi indi suñu style rek li xale bëgg li xale di wër ñun moom la ñuy def. benn instant ñun dañoo bëri feeling. bëri caag. xam nga rek ay temps mu mu des mu des ji mu temps woo. waaw loolu at looy toj àdduna. <laughs> mooy naa la pour Bamba. mais tey maa ngi la fekk fii ci Alizé Night Club euh, lan moo waral sa teewaay fii tey. waaw une deuxième fois ah, nous sommes initiés ak euh, Assane Souroulé tey mu doon ñaari soirée daanaka suñu loxo la nekk ñëw doolal ko rek parce que moom daa ñàkk ñaan vraiment ku baax la te mënuñ ñàkk teew yow aussi ñu lay remercier bu baax yow ak waa El Vision Médias gis ngeen liggéey bi ngeen def. ak aussi ni nga ànd ak xale yi di leen gunge ngay naanaan aussi chapeau à toi kontaan nañu baax ci waa El Vision jaa ngeen jëf. yaay sama mag tabaarkaala mais à chaque fois bu ñu ñëwee Alizé Night Club dañ la fiy fekk donc sa diggante ak waa Alizé lan la. waaw diggante bu rafet ah diggante ak suñu papa Assane Ndiaye ak suñu papa Perjo jël ñu jox ñu confiance bu mag a mag a mag seen kër donc mënuñ lu dul di leen di remercier chaque jour et puis di fexe bañ a nuire seen i seen i seen i maanaam lu ñu dénk daal di kontaan aussi di jox aussi rendez vous tous les artistes chez Sunset. pour ay événement yoo xam ne fii muy Madison wala muy beneen kër incha allah ñu liggéey si rek. mais man damaa bëgg nga organiser ma man tamit ndax temps yi damaa xew. boo yow boo bëggee suba sax ñu def ko. Ah. yow ba nga xëyee du tey yaay sëñ Bamba. dafa leer jàmm ci yow. Aïcha mu ngi noonu ca kaw ca ci lu baax ak daam laam sama doomu ndey nee na man ak moom démb lañ te wolof Njaay ne lu yàgg dëgg la Aïcha.